tey nag li tax ma woo leen mooy dajale njaboot bi parce que dafa am xale yi lu ñu bëggoon a def ma changé ko dañu bëggoon tontonte ak ñenn ñu yëkkati woon kàddu man leen jaru ko yàlla dogal nag maam lu ma leen war a jox comme information ma ne comme gaa yaa ngi fi naa ñëw profiter ci présence su presse bi joxe ko di nuyu waa Alliance pour la République yéen a fi ne Alliance pour la République ñii la ay responsable ñoom ndey Seynabou Ndour la ñoom ngañ la. ay responsable lañ alliance pour la république maa ngi leen alliance pour la république moo fi toog. ay responsable alliance pour la république ñoo fi toog. ku ne fii mooy alliance pour la république xam nañu parce que siège la ay responsable ay nit la lu neex waaye nag mu wax kuy defal alliance pour la république fi ab alliance pour la am kër ngay nekk fii la lu feneen. di gërëm ñoom Ndeye Seynabou Ndour di gërëm ñëpp ak di gërëm waa Médina yi bu baax a baax di gërëm ñi nga xam ni yàgg nañu ànd ak man gëm ni bu ñu ànd ak man mën nañ ma gunge ba yàlla dogal bu ñu demee ci ay élection <coughs> ma nekk meeru Médina nouvelle ma leen di jox nag xam naa ni du leen neex mais àddina moo mel noonu je ne serai pas la tête de liste de Benno Bokk Yaakaar Médina waxtaan nañu ci waxtaan lañu ñu génne ak président de la République ñu waxtaan il nous a reçu man ak Cheikh Ahmed Tidiane ñu waxtaan information bi am solo mooy moom mooy jiite listu Benno Bokk Yaakaar kooku mooy premier point d'information toog leen deuxième point bi am importance li ñuy def du affaire u maire kese am na ñu a nekk fii seen yéene